jërë ngeen jëf ami téléspectateur u people 221 ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar di leen jaajafal di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yéen di leen ndokkal ci weer wi ñu nekk di weeru gàmm di ndokkal sunu mbokku tijaan yi nga xamante ni barki démb la ñu doore li nga xamante ni mooy burtu bi di ñaan lépp luñ ci ñaan rek yàlla na ko suñu borom ful mu doon ay yiw tey nag eh, ñu seet si koo xam ne kenn dooru ko présenté ci Sénégal mais kenn dooru ko présenté ci pap bi muy Dj Lamine Sène fa seen waxtaan ak moom ku ne xam na ni fan yi nag ñoom ñoo appauvent muy rab bi moom lañ fa yéenee waxtaanal euh, dañ koy bàyyi mu nuyoog ñu koy suivre fii ci people 221. waaw jaajëf guy gi maa ngi lay nuyu di nuyu waa people 221 euh, di nuyu waa Sénégal la may seen euh, animateur la may seen président du structure bañ Bagnedal production membre du comité de de pilotage à AGC association des animateurs Galsen certifiés ak comité euh, de défense pour les euh, cultures urbaines fonds de développement pour les cultures urbaines maa ngi lay nuyu bu baax a baax. day tourner xam nga mm-hmm. xam nga même Ngaaka Blindé. Mm-hmm. Ngaaka Blindé tey la yaru. Mm-hmm. Ngaaka Ngaaka démb moo gën a réew junni yoon. Ngaaka bu tey. bu dee ni ñu ko mën a déggee quoi par mm-hmm. rapport ak son yu bees yi gën ni mm-hmm. gars yi naan dafay ñaaw làmmiñ ak yooyu ngaa ko Blindé démb la gën a ñaaw làmmiñ mm-hmm. ba muy nekk ci undu yi ba ci mbaari kàlla bi ci la gënoon ñaaw làmmiñ ñun bokk nañ si ñu ko wax ni euh, soignel bind bi arrêteel saaga yi parce que sa carrière commencé gul mais boo xoolee son wu ba mi. Mhm. sa waay mënul wax deux mots yoo xam ne daggalul tey. voilà foofu noonu fa laay ñëw. mu mhm. mel ni tey est-ce que tey euh, rab fi mu toll. Mhm. ak ñoom jeunesse bi nga xam ne ñoo topp seen ginnaaw. classante bi dëgg la neexoon na parce su ma rappelé woo hip hop feeling da nga doon taxaw rappeur bi taxaw ngeen ñu te du génn rap. mais ñu gis ni bii dafa dem ba dafa augmenté dem ba dugg sax ci ay affaire waaw euh, c'est dommage que des fois dañuy dañuy dañuy ëppal. il faut oser le dire aussi. parce que Ngaaka Blindé ak lu muy peser. Mm-hmm. poids bu muy peser tey waxuma la ci hip hop mais ci Sénégal ak adduna bi. Mm-hmm. yenn yi du woon moom. Mm-hmm. warul woon doon moom. ak lu brique pareil. li ñuy peser dafa lourd. kenn mësu dégg ci. dafa lourd. non dañuy clash. ñoom ñëpp a mës a mais intellectuellement. c'est-à-dire nantement la ñuy clasher clash yoo xam ne. il faut nga nekk dund hip hop. pour mën a xam pic bi kan moo ko moom. mais di dugg ci ay religion loolu mhm. beneen affaire la mhm. loolu ay ethnie mhm. gars yooyu dañ ko war di moytu mooy li la au départ ma ne la adduna bi foo dem dañu am suñu réalité réalité biñ am Sénégal nag permettre ñu yenn yi ay dugg ci ay ethnie di dugg ci ay euh, ay famille di dugg ci ay religion loolu moomuñ ko te am na ay son tey boo xoolee euh, li ngaa ko doon clashé booy euh, waa axlu briki par exemple di tuddu ba tuddu leen ne euh, ay taalibe baay. Mhm. waaw loolu andi jël leen kii andi gàmmu. Mhm. bon loolu xam nga tey boo nekkee taalibe baay xam nga nga déglu son bi automatiquement tu vas te sentir vexé. Mhm. mais boo dégloowaatee bu baax nga nekk ci game bi di nga xam ni fu ñu ko doon waxee rek mooy dañ doon rappeler à l'ordre waa axlu briki nii Euh, affaire de tarixa génnee leen ko ci gain bi. Mhm. bokk ci. Mhm. mais munoon na ko waxee ci beneen context mhm. bu dul clash bi. parce que boo xoolee clash bi métti na métti boo xam ne. ba ko ci dugalee rek danga naan lu ñaaw la ci teg. fekk tegu ci lu ñaaw mais dafa doon rappeler à l'ordre. waa Akhlou Brick par rapport ak euh, seen clashante bi ñu amoon ñoom ak euh, Rifu. Mm-hmm. ba ñu def seen euh, émission bi ak Cheikh Sarr. Mm-hmm. xam nga bañ ciy dugal affaire tarixa bi ak ainsi de suite. Mm-hmm. loolu la leen euh, Ngaaka Blindé doon rappelé que ni génneel leen ci game leen ci game bi. affaire de euh, tarixa yi quoi. mel ni sax dafa dem ba jur ay mots parce que démb maa ngi déglu Ngaaka muy muy saaga ah brusquement dem na ñu baal ma ci wax ji dem banaan xaw ma aara su booy booy duul su may wax. est-ce que loolu noonu tey ak fi jeunesse bu toll nii ak rap bi li ñu doon xaar ñoom. li moo tax ma ne c'est désolant déjà affaire bi dafa euh, dañ ci ëppal quoi. Mhm. mënoon nañ mënoon na yem ci benn son bi. Mhm. kii bu defee benn son def ñaar pare nañ ci quoi. Mhm. après on passe à autre chose. parce que y a d'autres choses yoo xam ne ñoo gën a important. mooy lim la. li ci ki ci bénéficié wu. mooy ñoom. dañ ciy am benn tour après ku nekk di wax ci hip hop bi mais lii bu ci amee ba pare bañ ci defee seen benn ña ci benn semaine ñoom ñëp ñaata son lañ ci def la est-ce comprendre nga mhm. tey nga dem mbuur mhm. ñaata problématique ñoo fa am mhm. duñ jeex yoo xam ne ak lu brique diggante biñ ñu def yeneen son yi rek xajoon na si tey on te parle euh, sexualité bi am biir mbuur mais mais nañ ko nañ ko yuuxu parce que seen baat egg na fa tey Akhlou Brick ku la wax ni le président jabaru président doomu président. Mhm. dañ leen di déglu parce que ay ndaw lañ. Mhm. kon ñoom y a des yi nekk biir mbuur mhm. yu gën a am importance. yoo xam ne tey. ba leen Mbour di jox drapeau Mbour bañ koy yóbbu fu nekk. bu mbuur nekkee ci ay difficultés. dañ ko war a yuuxu. Mbour mu ngi ay problème tubaab yee ngi jël seen suuf si di ko saax saaxee. di def leneen ak leneen mais lan moo tax Akhlou Brick di ci wax. mais def nga benn son. lancé nga sa pic. mais on passe. Mm-hmm. fii ñu xamul rek ñoo mën wax ni ak lu bëri mënuñu rab. Mm-hmm. dañoo mën rab. Mm-hmm. te lii aussi. seen fort la. bu ko fàttee muy ego trip di clash. seen fort la parce que noonu lañ fëlee ak ñooy boy kan. lu jiitu loolu dañ doon def ay rap yu teñ. donc au fur et à mesure ñuy dem lañ jékki-jékki beneen monde bi bañ leen di xam. ci ay son love ay son yu soft. nga yaakaar ne ñi lii lañ mënee fekk. li làqatu seen ginnaaw day fekk xamoo leen seen dem. Mhm, parce que d'après seen clashante bi ñu baree bari neex na nag ci challenge bi ak Sénégal. voilà mais ñu bari dañ ko ñaawlu parce que maa ngi déglu ëllëg rek euh, démb ñu ngi génnee benn son dem bay tudd ay sa jon bu ndaw bi. loolu moom moom laa la wax c'est-à-dire yooyu moo bokkul ci hip hop bi. Mhm. sunu hip hop. Mhm. sunu hip hop la moo tax may wax nag. tey boo demee Amérique. du fa xeet du fa dara. Mm-hmm. comme nit mun na fa génnee son daggal sax ndeyam. Mm-hmm. bi ko jur. Mm-hmm. loolu ñoom la seen réalité la. mais bokkul suñu réalité ñun. la dañoo am suñu hip hop ñun. au Sénégal ni ñu ko war a doxalee. te noonu lañ ko war a doxalee. mooy li mu la wax léegi y a des choses problématiques yi bëri Sénégal fii. rappeurs yi lañ ciy xaar. alternance bi am 2000. rappeurs yee ko xeex. Abdou Diouf. rappeurs yi ñoo ko raak. pour que. mag yi a pousse jeunesse bi ñëw. Mhm. voter Abdoulaye Wade. Mhm. Abdoulaye Wade en 2012 ba mu bëgg ba mu ñu bëggee forcer doomam. Mhm. rappeurs yee jugaat. comprendre nga. mais après ci régime Macky bi ba mu ñëwee. mais ban rappeur mooy taxaw di wax stop Macky. amul ci li muy def. au contraire dafa foofu laay waxee c' est problème. tey bu demee ba régime tiitatul rappeur. y' a problème. dëgg dafa sóoraale woon rappeurs yi. ab Abdoulaye Wade sóoraale rappeurs yi. ba au fur et à ba mu naan man su ku waxoon ne ay jeunes. Mm-hmm. ay daaneel du ma ko gëm. Mm-hmm. et là y' a Macky. Mm-hmm. lu nekk mu ngi am ci dëkk bi. mouvance Ousmane Sonko Adji Sarr. dem na ba à la fin melomaan ñoo wax ana rappeurs après gars yi ku ci nekk di ñëw. di def euh, semblant. di def ay benn son. di ko di Mm-hmm. mais pourquoi ñu doon xaar ba public bi di laajte où sont les rappeurs. Mm-hmm, mm-hmm. y' a problème. dëgg la. gis nga dafa am fu mën nga avec égo bi mën na bëri. clashante bi y' a mais chaque chose à son temps. Mm, dëgg la. hip bi fa la nekk. tey heure bi waroon na fekk ah mu am ay sons yu clarifié ak les yi ñu fa la assemblée. gars yi rappelé leen à l'ordre xamal leen li leen fi tax a jóg ko fi deful nii ak nii. teel leen araftu. teel a araftu kan ñaata rapport ñooy wax fi ci troisième mandat à part ay interview mais nañ génnee ci loolu génnee ci ay son génnee ci ay track yu dëgër wan président que ni munoo def troisième mandat noo sax poser candidature bay def troisième mandat mais kan moo ko ci wax à part ay interview wala ci benn son boo xam ne ça n'a rien à ak loolu nga nga nga laax ko ci ñu ngi yokk nju njugu dund bi doo dégg kenn ku ci wax robinet yi tey nga am ndox suba doo am ndox ndox bu bon. Mhm. gars yi du ci wax. Mhm. tubaab bi di jël suñu suuf. Mhm. pétrole baa ngi fi. zircon baa ngi fi gaz ba ngi fi. xam nga loolu mooy problème mu rapportu démb yi. gis xam nga fan la ñu ëppee doole booy. mooy dañ doon gëstu. ay livres. di ñoom léegi sax ñoom ñoo gën a tane parce que internet ba ngi fi. mun nañ dugg léegi xam information yi am ci àdduna. ñu teg ci. mais grand yi démb. amuñu internet. journal lañ ko doon jënd comme pas possible. di wootante téléphone. di xam li xew ci àdduna. fan la seen réew jëm. ñu bind ci son. teg mais léegi danga bëgg miser wut rap yëpp. yow boo clashul. yaa ngi def sa benn ego boo deful sa ego yaa ngi ci love. pare nañ ci. dëgg la kon ça veut dire rabatuñu. Mhm. juste pour. li tax a jug rap dëggantaan mais dañuy rap pour xaalis mais dañuy rap pour ñoom seen bopp quoi. dëgg la parce boo xoolee sax ci coow démb li ki nga xam ne mooy Bril. Mhm. génnaan na ci moom euh, maa ngi déglu son bi muy wax ba naan euh, aada ak Dayza sama ñaari jabar kan laa ci war a juutal. waaw xam nga yooyu dafa ñaaw. aada mooy aawa Dayza sama deuxième femme. man yàlla yàlla def na. Mhm. muy ngaaka woo di ax lu brik di mhm. Bril. démb laa woo Bril démb. dama ko woo téléphone. ma ne ko pourtant de. son bi mënoon na ñàkk quoi. Mhm. mënoon ko wax bañ a def. Mhm. nekk ci sa nekk ci sa wéy. Mhm. xam nga. mu ne ma non il faut que mu am réplique et tout léegi boo amee réplique keneen ñëw réplique. léegi keneen mën na jug fee tey euh, imaginez bu demee ba jël booy def peintre. tableau tableau d'art yi sax ñu ngi ciy bëgg a dugg. pour defar tableau yoo xam ne day caricaturer gars yi. donc mu ngi jël yeneen tournure yoo xam ne doo sax comprendre après fan lay mujjee. lii mun na jur lu nekk. dëgg la mun na jur lu nekk mais hip hop bi moo eggul foofu. Mm-hmm. gars yi dañu war a xam ni mun nañ def clash. Mm-hmm. mais kenn ku nekk ci ñoom boo ko laajee la mooy objectif bu bi nga def nii mënu la ko wax. Mm-hmm. bu buñ la ci tontoo loo xam ne dafa dëggu. amul objectif bu leer. te clash dafa war a objectif. mais léegi léegi yéen léegi yéen ñi nga xam ne yéen a ci rappeur bi yéen a ngañ ci rappeur yi. maanaam yéen a téye rap yi yéen a génne euh, ñi nga xam ne ñooy rappeurs yi. Mhm. léegi ban taxawaay ngeen ci am xam nga lii mënoon nañ ko clarifier mu féete boor parce que damay déglu dem ba léegi nga gis euh, ci internet bi gars yi naan waaye léegi animateur mbalax maani ñoo dem sax di di invité rappeurs yi di profité ci seen buzz yi. Mhm. mais bu dee animateur mbalax yi la rappeurs yi gën a jox bopp mais ñoom ñu def ko. je m'explique. déglu naa benn interview nit dof. bu mu def euh, ci benn site. mu ci wax ba ne loolu c'est pas normal dama koy wax ni loolu su amee c'est parce que rappeurs yi seen bopp ñoo xamatul seen bopp. je m'explique animateur rap yi le di sous-estimé. Mhm. te loolu jaaduwul. gis ki def hip hop. hip hop lay def xam na ko bu baax. Mhm. malgré que même bu dee yenn animateurs yi. Mhm. Euh, amuñu bagage intellectuel par rapport ak hip hop. Mhm. mais le minimum. yow mi nga xam ne tey bu la booy bi woowee. animateur la même bu dee xamul lu bëri. yow bu la invité ngeen toog ngeen waxtaan mun na am leneen lu muy dolli ci moom. pour mu gën a am expérience. mais bu dee bu la invité déjà bu la woowee doo ko jël. bu la yónnee message doo ko tontu. su la invité doo ñëw. léegi benn Pape Cheikh il est partout. Mhm. benn Cheikh Sarr il est connu partout ñoom ñoo lay nga ñëw léegi ñoom bu la invité nga ñëw léegi animateur mbalax ma rappeur bi su la invité. doo ñëw dala dul fan lay mujjee. Mhm. ñaata événement hip hop ñoo fi am yoo xam ne amul benn événement hip hop. Mhm. tey émission yi ñu dem ci hip hop bi dañ koy compter. ñoom ñëpp ci émission mbalax yi la ñuy dem. ku ci demul ci Abba yaa ngi dem ci Cheikh Sarr wala nga dem ci Pape Cheikh Diallo. léegi émission hip yi en tout ça. Mhm. anamu. Pape Sidi Fall mu ngi wax nii c'est-à-dire tu prends mais c'est comme nga jël géej gi nga génne si benn kopp ndox. Mhm. benn kopp ndox nga génne ko ci géej. Mhm. mais loolu nga ma bëgg tontu nii. c'est-à-dire benn Pape Cheikh benn benn benn Pape Sidi Fall kese ak kan c'est-à-dire man su lay wax. je te parle des animateurs hip hop. Mhm. comme moom. des animateurs hip hop tey imaginez on perd des des des yoo xam ne ñu dem nañu ak ay bagages ci hip hop bi. Mhm. tey jëlal jëlal DJ Ko ñaata archive la yóbbaale tey mu ngi toog Allemagne tey prend Pape Gueye ñaata archive la yóbbaale États-Unis toog fa b tout récemment mu ngi toog Espagne. ñaata bagage la yóbbaale. Mhm. DJ Mef mu ngi toog dafa obligé ubbi rajo web man ma toog alors que les radios les télévisions sont là léegi qui va faire les émissions yi nga xam ne mën nga toog nga ne kat ndekete débat bi lii la. Mhm. parce que sël ñi nekk ci biir hip hop bi ñoo mën a clarifier li am nii jamono bi diggante Akhlou Brick Ngaaka. Mhm. Bril seul ñi nekk ci hip hop bi laa la wax ñu nekk ci hip bi moom laa doon wax Pape Cheikh dem euh, ma ne ko il faut organiser un plateau de grandiose ñu teg Akhlou Brick ñu teg Ngaaka Blindé ñu clarifier débat bi moo tax ma ne la. Mhm. boo demee ba ci biir da xam ne lii dara amul ci dara. Mhm. dañoo jug rek. Mhm. ku nekk di xëcc sa morom xëcc fii xëcc fii mais amul amul amul dara. parce que amul dara lu objectif. hip clash day objectif. man tey mun naa clash Pape Sidi Fall mais day objectif. li tax muy objectif mooy su ma clashee Pape Sidi Fall en dehors ci li bokk def rek dootul clash. loolu dama koy manque de respect. loolu la wax disrespect. bu ma tasee ak Pape Sidi ma jël xeer wala gourdin fekk fu mu taxaw rek dóor songu. loolu dootul clash dootul disrespect mais nekk na biif. est-ce comprendre nga. c'est-à-dire yooyu yëpp il faut gars yi di ko xam ego trip tagg sa bopp comme ni ko mbër bi di defee. bàkku man maa def lii maa mhm. mën lii maa man lii dafa bokk ci hip hop. Mhm. mais di clash clash nii rek pour nii rek. Mhm. mais dootul clash. amul benn objectif. léegi gaaka na taxaw mu ne ñu objectif bi tax ma clash ak lu brique lii la. te bu mu mu bañ a génn hip hop. ak lu brique wax ñu lan moo tax mu ñoom ñiy réplique ci ngaaka blende par rapport ak clash boobu ba léegi ba ngay dégg ay son la nga ci dégg ay ndey. ay sa baay ay taat ay sa taat ay sa cucu ay sa lii yow tey aara nan la xamee ni ngaa ko kii bi noonu la toll. jon bi noonu la toll nan la xamee gela ko wax <laughs> xam nga yooyu day dem ba juri leneen ak leneen ak leneen. Hmm. donc mun na ñàkk quoi. Hmm. parce que vraiment man tey benn ngaa ko blende fi voix am toll lim la wax ak lu brique laa lay wax. tey géejawaay ay place yu am ndox tey boo demee école bu mu doon jàngee ndox quartier feneen ak feneen ndox dañ ko koo xamee. Mhm. ay son yoo xam ne parce que bindkat la buñ ko fàttee. Mhm. ngaa ko bindkat la. c'est un très bon rappeur. Mhm. bu produit mbedd mi pur. ak lu brique produit mbedd mi pur. kon loolu su amee mbedd mi soxla leen dañ ko war a delloo mbedd mi. Mhm. parce que besoin net bi ñuy wut nii ñoom ñi koy wut ay booy la yoo xam ne dañ koy takkale mhm. ñooy jënd seen connexion. ñooy seetaan te xool eh, connexion Sénégal dafa cher. Mhm. ñoom ñoo koy jënd boo yooyu ñoom ñoo koy takkale ci maquette yi. ñoom ñoo koy takkale ci mbedd mi. des fois dërëm duñ ko yor. ñoom ñoo leen di suivre. ñuy am ay vues di am ay like. mais boo yooyu seen problème ñoom kan moo leen koy fajal. Mhm. kan mooy rappeler état bi que ni ñii dañoo sonn. Mhm. kan mooy rappeler état bi que ni location bi dafa métti. Mhm. kan mooy rappeler état bi que ni Sénégal doxul. kan moo koy wax mais foofu la ñuy xaaree rappeurs yi. day am moment boo xam ne day am moment down. ñu def ay son soft. love. ego trip. mais day am fu Sénégal toll jamono bii nii nii nii Sénégal soxla na leneen. lu dul ay clashante nañu waxante dëgg. Mhm. Sénégal moo gën a métti fépp. Mhm. Séné adduna bi fépp a métti. Mhm. mais Sénégal dafa gën a tar. parce que da ngay dégg di ay milliards de gauche à droite. rayante de gauche à droite. leneen ak leneen ñi ci xaar rappeurs yi. rappeurs yi toog fee di saagante di dàggasante. parce que lii dootul classe ay dàggasante la quoi. nañu waxante dëgg. dëgg la. Euh, vraiment ñu ngi may signaler li ñu mayoon ci waxtu jeex na euh, émission bi nag xam naa ni man du ma ci doyal quoi xam naa dinaa ñëwaat boo xamante ni. day gën neex bii neex na mais beneen partie boo xamante ni dañuy waxtaan parce que tamit il il fallait ñu ñu waat. parce que tamit boo xoolee li nga wax dëgg la maa ngi xool lu ci mel ni clip bu Ngaaka bi boo xoolee léegi dafa mel ni ñoom influenceurs yi sax la ñu gën a jege que ñi nga xam ne ñooy melomaan yi loolu lépp dinañ ñëw nag gën cee waxtaanaat euh, kontaan nañ ci resevoir bi. jaajëf jël nañ sa temps dañ lay bàyyi nga sant euh, ñi nga xam ne ñoo lay suivre wala nga tàggatoo ñi lay suivre fii ci People maa ngi maa ngi jaajëfal dèjà xam naa ni tamit. Euh, trajet bi métti woon na. Mhm. xam nga c'est juste pour montrer que ni. Mhm. dëkk bi dafa bëri lu ñu war a liggéey. dëgg la lu bëri dañ ko war a liggéey. Mhm. parce que ñun bu ñëwee toog suñu gàlle yi fii. ay ndox du ñu wër. voilà du ñu daw dem fen dañ koy gérer. léegi ni ñu koy gérer mooy di rappeler état. lu mu war a def. li mu war a def. mooy réew mi. am na réew yoo xam ne tey buñ ci jotoon. li nekk ci réew mi buñ ci jotoon. soo kenn waxatu ko. ñu rappelé état bi rappeurs yi nañu fàttalikuwaat. Mhm. nañ fàttali. Mhm. tey ñoom li ñuy def ni mbalax maa sax ñu ngi koy def. Mhm. waa léegi clashante. Sidi Diop di clash fee. Viviane des fois mu clash. te di ñëw tontu ko. waaw ñoom ñëpp a ngi clash léegi bu ñu demee ba mbalax maa ne sax di clash. ah waa rappeurs yi ñu war a def. nañu delluwaat seen bopp. parce que xam nga xam nga ni rappeurs yi ñooy bindal mbalax maa ni. xam nga ko. man ko doo ko xam. rappeurs yu bëri ñooy bindal baxaaw day bindal. Maxi Crazy bindal na fi ñaata yoon Youssou Ndour. Mhm. Maxi Crazy bindal na fi Fata. Mhm. Kourouma di Mori day bind. Mhm. ay mbalax man. Baxaaw day bindal. il fii nga yàgg ci hip hop bi xam mooy lim la ko euh, nga xam rek benn mbalax man su wooyee. vers bu tegee deux barres rek. nga ne lii diw moo ko bind. damay toog defaa sama soxna benn son mbalax génn mu ma oh, son bi neex na ma ne ko diw ko bind. te au fur et ñu mesure ñuy dem day xam ni diwa ko bind. mu ne ma hmm. na nga xamee ni ma ne ko en fait yàgg ci game bi la. Hmm. parce que ñu toog def ci presque benn carrière suñu suñu dund yëpp. Hmm. tukki ci dem fu nekk ci àdduna bi. te duñu xam gars yi kii moo bind lii kii moo bind lii. nga permettre ma. ci lii aussi ma lancé ci benn appel. ci kenn ko xam day bindal Wally Seck. muy benn sénégalais. Euh, dafa nekk ci ay tolof tolof. nekk ci kaso. Euh, moom la Thione Ballago Seck doon wooyee Baye Niass. Hmm. donc benn sénégalais euh, dañ ko tëj ci kaso. Hmm. depuis lu jiitu avant tabaski. Hmm. mu nekk ci kaso bi. Euh, li ko fa dugal du lenn lu dul benn waay moo doon def vidéo vidéo bu mu doon def rëccale wax ci lu mu warul wax président de la république te fa mu ko doon defee place su benn sénégalais la. ñu ñëw jàpp booy bi yóbbaale benn sénégalais. Mhm. loolu nag il faut que état bi wax ci. hip hop bi. Mhm. mooy lim la gis nga am nañu ay combat yu bëri ñu war a mën a gis nga moom. Mhm. ci la bokk. am na benn promoteur boo xam ne tey. amaana bu nekkoon tey ci biti nii nii nii nii nii. dina exploiter clash yu Ngaaka Blindé ak ak le brick moom it mu ngi ci kaso bi presque ñaata at. ñu jiñ ko mbirum terroriste ci loo xam ne dara du ci dëgg. mooy Aliou Dianka mm-hmm. mu ngi ci kaso bi pendant presque deux ans mm-hmm. gars yi kenn du wax ci moom ñu koy jiñ birum terroriste yi nga xam ne existé wul mm-hmm. ñun jiñ birum terroriste nekk fii nii ci réew mi dañoo bëri trop trop trop trop te du dëgg terroriste amul ay mercenaires ñoo am ñoo xam ne affaire de illuminati faramason yi ñuy dund ni ñoom ñoo ko fiy teg ñoom ñooy yónni ay nit dem leen nit dem leen exploser fële. Mm-hmm. def nii après ngeen bu ñu taxawee jiñ leen affaire terroriste. Mm-hmm. tubaab bi chaque jour ñu def lu gën a pire mbirum terroriste. Mm-hmm. te doo ci dégg ñu wax la terroriste. est-ce comprendre nga mais il suffit benn tubaab de. ñu ne mbirum terroriste ça rime à quoi. nañu bàyyi doomu jàmbur yi ñuy teg ci kaso bi ñu tax mbirum terroriste c'est pas du dëgg. kon muy benn sénégalais muy Aliou Dianka. nañ leen bàyyi nañ leen bàyyi quoi parce que ay doomu réew mi lañ. ñu yàgg xeexal réew mi. ay entrepreneur lañ doon fay ay salaire mm-hmm. tey ñooñu lañ gën a yitewoo mm-hmm. que ñenn ñi quoi parce que ñu war a tëdd ci kaso bi tëdduñu ci kaso bi ñu ngi ci mbedd mi di tambaambalu quoi mm-hmm. yeah à maa ngi lay maa ngi leen di gërëm bu baax di leen jaajëfal euh, di jéggalu nag bu dee am na lenn lu fi déraper rek xam nga comme li may wax ñun bu ñuy wax tiimuñu këyit ñu feuille téyewuñu téléphone voilà dañuy question bi su ñëwee rek automatiquement li ñu koy tontoo ay doomu aadama lañ nag. mun mm. nañ jum. Mm. mais ñu ngi jégalu bu dee wax nañ fi dara lu drapé. Mm. luñ ciy jublu woon rek mooy defar parce que hip hop bi ñu am. Mm-hmm. Euh, ci lépp ci la nekk. Mm-hmm. donc bu jaaree yoon. Mm-hmm. mooy ñun moo ñu defar. bu jaarul yoon nag day xaw a day xaw a góos. ténor yi aussi. nañuy nañuy jël seen responsabilité. les grands nañuy jël seen responsabilité kaw ba suuf. ñu gisee loo xam ne jaaduwul ci hip hop bi ñu génn wax. mais bu ñu toogee rek neutre. Mmh. dañu nekk ay complice. Mmh. parce que bu ñu toogee waxuñu naan fi way booy bu ñu génnee après dañu may saaga ci internet wala dañu may saaga lii. Mmh. ça beneen affaire la parce que imaginez diggante dem ak tey euh, Calze bu RFM gars yi ñu ngi koy menacé nu ne. ci benn wax bu mu wax ci kaf. diggante Akhlou Brick ak Ngaaka. Euh, que ni benn son wu Ngaaka moo mën ñaari son wu Akhlou Brick. ainsi de suite waxee ko ci kaf gars yi di ko ci menacé ak def lu ne. donc loolu jaaduwul. gis nga ñun. c'est nous dans man mun naa woo Akhlou Brick man en personne neleen lii dama bëgg mu dakk mhm. cër biñ ma jox man mhm. gëm naa ne mun nañ ko mhm. mun nañ ko bàyyi Ngaaka Blindé su ma su ma rakk la su ma jàkkaarloo ak moom père la may wax mun naa ko ne boy lii doy na quoi defal leneen on passe à autre chose kon nu mu amee noonu grand yi mun nañ ko def génne benn vidéo wax ak booy ne leen kat doy na assez mais ñoom duñ ko def parce que mm. ragal nañ booy saaga leen ragal nañ booy xas leen alors que ñoom ñooy les ténors mm-hmm. kër goo dugg dafay am kilifa mm-hmm. donte rab bi kenn moomu ko mm-hmm. mais ñoom dañu war di wax bañ a nekk ay complice nañ bañ a nekk ay complice parce que booy mun nañu demee fugg fugg bi ñu dañ ko doon def démb. Mhm. mais après lañ comprendre ne fugg bi. rek mhm. rek yóbbuwu la fenn. Mhm. ngam xaalis. am ko ci dignement c'est très important. parce que li ñu def ni bu dee n'importe comment nu ñu mën a def am nañ xaalis. baax na kon mun nañ wax booy dem leen jaay drop. dem leen jaay bon. jigéen dem leen jaay seen bopp. noonu lañ amee xaalis baax na loolu yëpp ñu war ko kaas ci réew mi. gars yi nekk fii Sambata Ndiaye ak maa la def nangam ak maa la def nangam. y' a mm-hmm. plus important dans ce mm-hmm. pays yoo xam ne dañ ko war a génnee. Mm-hmm. c' très important pour ñu cooy rappeler quoi. yes. Euh, jaajëf voilà yi mu ngi noonu ah kontaan nañ ci dalal bi di sant bu baax a baax nag Dof Diop. Dof Diop borom wal fajri maa ngi koy sant bu baax a baax parce tey jàpp na ci émission bi lu bëree bëri waaw maa ngi koy sant bu baax a baax di ko ñaanal grand bu baax la ñu ngi leen di jox yeneen dig daje fii ci People